salaamaaleykum internetu Sénégal alors tey ñu dalal fi koo xam ne nag euh, beatmaker la mm, koo xam ne kenn dootu ko présenté beatmaker yu yu français yi taamu artiste français yi américain yi Majestic Drama ma bàyyi la nga nuyu ak internet yi ñuy seetaan. Aïda merci pour invitation bi ak waa Sénégal donc tour bi euh, Drama la man producteur la euh, beatmaker et mhm. donc waaw maa ngi si wàllu musique mi nga ñëw sol sa maillot Paris nii. waaw ah, man de man Barça dañ lay seetaan. ah Barça kenn yàlla na leen yàlla yërëm rek. <laughs> mu ne ko Badou alors nga ñëw ñëwaat un peu euh, si si musique. waaw mm-hmm. donc bon man pour commencer man bi ma amee 14 ans laa dem États-Unis et mm-hmm. donc bi ma demee États-Unis nekk lii si laa commencé di def production musique. Mm-hmm. dama nekkoon si benn sit di def compétition ak yeneen uh, beatmaker yi. léegi di gagné compétition di si gagné waale xaalis. Mhm. tey que bon sama carrière musique noonu la commencé. ak quinze ans mhm. voilà. maa ngi gis si euh, sa benn interview nga ne 2004 nga dem aux États-Unis waaw waaw ah, ba nga amee euh, nga commencé production. ah 2000 2005. 2005 nga commencé. Euh, gagné donc donc bi ma demee voilà donc bi ma demee en 2004 14 ans ma commencé def production en cinq 2005 nga commencé def production. production waaw mais kañ la si commencé par exemple génne xaalis. jël ko jël ko comme carrière. Mm-hmm. en 2010 laa ko def comme carrière. d'accord de ans wala commencé di si am voilà. voilà di si gagné euh, si compétition yi si site bi quoi. Mm-hmm. mais lan nga xëyee rek nga ne lii mën naa ci am dara wala mën naa ci def euh, carrière. mbiru yàlla rek wax dëgg yàlla parce que bi ma euh, en 2010 dama nekkoon université Canada. après bi ma defee stage ak gouvernement canadien bi. Mhm. ak euh, à Québec. man gisuma sama bopp di dugg si ay bureau quoi wax dëgg yàlla di yeew ay huit heures chaque jour xam man daal ma toog ma ne waa man université université daal gisuma si sama bopp quoi. Mhm. après benn jour. yàlla li li yàlla di def yàlla ne ma booy jugal nga def lii te te te. ah non non yàlla mooy lan danga def am lu la feeñu lu la jox ay. lan la lan la dikkee instant bi nga toog benn ku la inspiré. benn réalisation bu ma am dama jug benn suba rek. Mhm. xaw ma lu ma dem def sama life quoi. vraiment dama tolloon fu metti xaw ma woon lan laay def xam nga. aw ma xaalis. xam nga j'étais vraiment dans le besoin quoi. Mhm. tu vois léegi ma toog rek toog toog lenn daal moo ñëw sa bopp nee ma yow lii nga war a def defal lii defal lii defal lii après si laa jug si saa si commencé def lépp toog benn jour rek sama téléphone sonné ma gis benn paiement cinquante mille dugg ma ne ok deuxième jour cent mille dugg affaire bi di accumuler mois bi benn mois ma def cinq millions sama premier mois cinq millions. cinq millions waaw premier mois. Mhm. ma ne waaw ok kon fii mooy sama yoon quoi après si laa jógee Canada dellu États-Unis mhm. après à partir des états 2010 si laa ko jëloo sérieux 2011 ma def sama premier placement avec la FUN mhm. léegi placement boobu moo def euh, platine en France tout la night mhm. waaw mais nan nga par exemple est-ce que da ko jàng man di jàng ma ko comment ça jàng ma ko sama famille man rek maa def musique ñoom ñëpp dañoo jaaxle ñu ne yow foo jëlee sa xam-xamu musique bi mhm. si biir famille bi yow rek la yow rek yaa def musique mais nan nan la la dikkee parce que loolu c'est nan la don la wala da nga xëy nan nga duggee studio ba ba réaliser par exemple sa benn premier beat. xam naa don la bi ma nekkoon Sénégal dama dem seetaan euh, chaîne musique yi. ci seetaan ay Kanye West di leen seetaan ñoom ñëpp lu ñu doon def ça me parlait quoi ça me disait chose. Mm-hmm. vraiment donc bi ma amee 15 ans ma nekk si internet bi temps yooyu connexion yu yéex nañ amoon. Mm-hmm. xam nga léegi may seetaan YouTube YouTube ngi soo a commencé ay deux mille deux mille yooyu voilà ma gis benn programme bu tuddu Reason ma ne ok xaaral ma jéem dugg si production bi après noonu la commencé wax dëgg yàlla. mais da ngay gis beatmaker par exemple yi nekk Sénégal dañuy mën a jouer yenn instruments yi. voilà pour mën um, a teg pour mën a jaxase affaire yi mu mën a am originalité. voilà yow est-ce mën nga ko nan nga nan nan mën yooyu noonu par exemple. man loolu yëpp damay programme damay toog si kanam ordinateur di ko def loolu yëpp. ah ci ordinateur yi ngay defee gis na ko toog si clavier di ko jouer man mën naa ko jouer mais si ordinateur. ci ordinateur voilà. alors euh, Sénégal par exemple nan nga gisee métier beatmaker fii au Sénégal. métier bi man si man euh, gars yi il faut ñu imposer wu beatmaker yi fii il faut ñu imposer wu euh, il faut gars jox leen cër tamit ñu gën a am visibilité. Mhm. parce que beatmaker tamit artiste la si boppam xam nga ku toog di jouer si clavier wala nekk si ordinateur rek artiste nga yow tamit. donc euh, aussi ñu xool prix instrumental yi imposé suñu prix yeeg yooyu quoi. Mhm. parce que san sans beatmaker doo am artiste. sans beatmaker doo am artiste donc il faut artiste tamit ñuy fay beatmaker yi jox leen seen cër. Mhm. lu tax ma laaj la loolu sax euh, mooy euh, yow lu ëpp foofu ngay gën a liggéeyee foofu la ñuy gën a fayee beatmaker parce que da ngay gis par exemple à l'étranger beatmaker mooy gën a am xaalis sax artiste bi. donc moo taxoon ma ne la Sénégal ñoom beatmaker fii ay cent mille francs la ñuy defee son wala deux cent mille est-ce que loolu ko gisee prix bi déjà li ñuy defee biti euh, xam nga prix wu sa ça dépend si producteur bi parce que yenn producteurs yi fii Sénégal am na ay artistes yuy fay seen producteur ay millions am na ñoo xam te ñu ngi fay cinq cent mille ba un million ba jëm kaw mm-hmm. tu vois léegi différence bi entre Sénégal ak bitim réew mooy Europe wala États-Unis mooy dafa am système de royalties royalties mooy kenn su ñëwee fay benn insu que ça soit cent mille wala cinq cent mille un million si ginnaaw daa luy ñëwaat. daa daa am luy dugg parce que chaque vente stream yeeg ak album yi vente d' album. da nga siy am pourcentage. Mhm. léegi Sénégal système boobu leen war a développé waa SODAV ñoo si war a jug. Mhm. gouvernement bi dafa war a jàppale artistes yi fii aussi. parce fii tàmm ñu son par exemple. waaw c'est vrai tàmm ñu jënd son. Mhm. mais mën nañ am benn système de streaming boo xamante ni dina fay artistes yi ak producteurs yi. Mhm. vraiment SODAV ñoo si war a jug France am nañ loolu sem la tudd. SACEM fii SODAV foo ñu jug si rek. pour xam producteurs yi laal si xaalis bi tamit. Mhm. fan moo gën a rentable par exemple euh, à l'étranger yow artistes yi nga jot a par exemple nan lañ leen déjà avant may ñëw fan moo gën a rentable nan lañ leen defee euh, nan lañ defee démarche ba ñëw ci yow euh, choisir la en tant que beatmaker. xam nga honnêtement domaine boo mënti nekk relation mooy def business. donc relation yi moo développé pendant les années moo tax ma egg fii fi ma egg nii tamit. ak yenn artistes yi tu vois damay toll Atlanta kenn contacté ma à partir la France ñu gis ma ci benn site ndax dama benn visibilité boo xamante ne gars yi ñu ne ils sont intéressés li may def gars yi signé ma ay contrat et tout après suma teg suma tànk France lii Atlanta laa nekkoon lii yëpp di am tu vois après ñoom ñu mettre en rapport avec la fuite après noonu la morceau yi di ñëwee quoi voilà donc euh, bon si sa question ñaari question la mhm. en terme de rentabilité ah comme li ma la wax système ba foofu day permettre producteur wala artiste di gagner plus ndax royalties yi yu ñëw si ginnaaw mhm. par exemple artiste France français mën na ñëw par exemple kii kii Ice kii Ice Lemsi la pour disque ah, d'or bi ah. voilà kii mhm. Ice Lemsi la kii su ñëwee Majesty dama bëgg joob yow envoie my prod ma envoyé ko prod mu bind prod yi enregistré mu ne bii moom dama koy dugal si album bi léegi prod bi dinaa la ci fay on peut dire deux mille euros deux mille euros mooy à peu près mille un million huit cent n'est-ce pas. ci benn benn prod. voilà ci benn prod léegi su payee un million huit cent ñu def pourcentage pourcentage bi mooy droit d'auteur avec l'assassin léegi su ñu defee droit d'auteur Euh, man mën naa si am 50 pour cent wala mën naa si am 25 pour cent mais d'habitude 50 pour cent la léegi disque d'or ça veut dire def naa 50 000 ventes léegi soo jëlee 50 mille ventes en en euro mooy à peu million 30 millions CFA donc en plus des 1 million 800. 30 ah, millions ñëwaat na. Mhm. donc ñu diviser ko si pour cent 50. tu vois donc mu nekk quinze quinze voilà. kon yow ci benn prod mun nga ci am par exemple vingt millions. voilà. Ah, voilà tout nga am ci vingt millions ci voilà donc loolu yëpp si système royalties la li ñu war a développer au Sénégal. Mhm. parce que SODAV moo si war a jug. Mhm. SODAV moo si war a jug. voilà à part ban artiste boo xam ne tamit euh, defal nga ko benn prod ngeen bokk benn projet mu neex la. ah à part ISLMC ISLMC wax dëgg yàlla ISLMC wax dëgg yàlla Lafouine Lafouine gis nga Lafouine juste système royalties yi ba léegi maa ngi jot ay chèques si euh, toute la night mm-hmm. parce que démb rek dama dugg si sama système SACEM parce que man dama enregistré avec la SACEM en France quoi. d'accord rek da lay gis montant yuy dugg pour chaque morceau. Mm-hmm. loolu moo tax système boobu am importance imagine nga dem tëdd di nelaw ay chèques di dugg. Mm-hmm. jeex na de. voilà. alors disque d'or disque platine. waaw ci ci ci ci produit euh, bit nga ko amee. waaw en bit que beatmaker. waaw euh, tey Sénégal nga gis euh, nu ñuy doxalee fii artiste ku maa ngi la woon signalé bu bu fayee cent mille sax bit danaan dafa cher ak yooyu noonu. tey fi tey ñu gis la artistes yu bëri dimbali nga leen am na maa ngi seetaan sax benn clip bu yang tili. Mhm. gis naa yow yaa ko defal production récemment gis naa du king yaa ngi ko defal benn benn benn production artistes sénégal yi est-ce que ñoom tamit dinañ ñëw envers toi pour pour pour pour bit wala quelque chose comme ça. sollicité la waaw xam nga man man depuis bi ma nekkee Sénégal. Mhm. Canabasse moo dem dugg sama site di jënd samay instru ah waaw te moom xamul woon ni sax sénégalais la ok c'est par coïncidence ñu ñu xamante et tout mais dafa dem jënd sama instru si sama page internet. ñaata la ko jëndee moom Canabasse moom dafa dem jënd moom. ñaata lay si contrat yi sa si contrat yi moom yenn saa day jël contrat wu parce que man dama am benn site boo xamante ne damay def prix yu bari pour budget yu bari. parce que artiste bu nekk ak sa budget. Mm-hmm. am naa ay artistes yoo xamante ne amuñu budget wu un million amuñu budget wu deux millions mais dañoo bëgg def musique et ils veulent le faire de manière légale mm-hmm. parce que bëgguñu tamit poser si benn instru après ma gis ko après ma ne non vidéo bi il faut ma daaneel ko. daaneel parce que loolu mosoon na am France. kenn jëloon sama instru fayu ma woon ma ne vidéo bi day wàcc par force. Mm-hmm. YouTube daaneel vidéo bi commencé yàq page wu euh, YouTube mais Canabasse moom ay contrat comme li nga wax sànq cent mille la doon jënd. contrat wu cent mille fii ak fii mais na nga xam ne nii. contrat wu cent ku nekk mën na ñëw jën instru bi tamit ndax ku nekk si mbedd bi gis sama site bëgg contrat cent mille mën na ko jënd Canabasse mun na ko jën kii mën na ko jënd mën na ko jënd. voilà mais ku bëgg contrat boo xamante ne yow rek yaa bëgg posé wu si instru bëggoo keneen laal ko waaw ah, xanaa boobaa da ngay yegg si kaw waa à partir de combien boobaa da ngay yegg si kaw non non non moom. pour le prix au Sénégal moom. le minimum bu may accepté mooy un million. un million waaw pour benn. Euh, pour benn pour benn instru benn morceau. voilà yow rek yaa moom keneen du ko laal. d'accord ça le minimum. est benn artiste sénégalais boo xam ne mës na jënd si yow loolu bu un million. Kara Karabas man ak moom kan man ak moom daal ñu ngi job Karabas moom saa yu ñuy job c'est clair net. su waree dem retiré retiré bu ñëw fay xam nga. Canabasse moom il a été il est correct quoi. il est correct quoi instant yi sax maa ngi commencé job baax wan uh, liir que lax Amzo. Amzo ñu ñaan ñuy waxtaan si production yeeg yooyu tamit quoi tu vois. ñoom ñu ngi ñëw ngi ñëw ci yow di di di di la solliciter. waaw non mais artistes yu yu siiw Sénégal ñu am position yu gars yi xam ñoom dañoo jël seen musique au sérieux. Mhm. foofu ñu si loolu kafuñu si lool tu donc euh, ñu ngi fay. Mhm. ñu ngi fay les montants qu'il faut. mais est-ce que est-ce que yow tamit dinga jàppale artistes yoo xam ne da nga gis talent ci ñoom après nga defal leen. waaw gis gis man nag man. Mhm. man man de façon générale dama di jàppale nit ñi daf ma neex nag. Mhm. man képp ku ma xam sax dama yëkkati dara di may nit ñi sama réew di xam nga di jàppale waa réew bi waa Sénégal quoi. mais artistes yu bari yoo xamante ne fëlaguñu comprendre ñu nan la business bi di demee c'est un peu difficile di di joobaax ñoom parce que comprendre ñu yenn démarche yi ndax soo commencé di liggéey ak artiste il faut nga investir si moom musique dafa laaj xaalis maa ngi nam def benn live dimanche maa ngi waxtaan ak benn boy bu tudd Kutch loolu laa ko dem expliquer soo defee benn morceau. da nga war a def fay pour production fay mixage fay pour clip fay marketing te mën nga def loolu yëpp doo si gis dara zéro franc doo ko gis bu fekkee ni xamoo looy def soo xamulee looy def moom doo si gis dara. waaw mais su ma ñëwee di approché yenn artistes yi. xam nga ñuy yaakaar ne su ma ñëwee rek war nañ gis benn check war naa leen fay dara te musique du noonu lay demee quoi. Mm-hmm. man déjà dama war a dépenser lu bari pour gars yi gis seen musique donc man dama war a récupérer li ma dépensé en premier avant pourcentage bi di dugg loolu mooy business. Mm-hmm. mais ñu bari comprendre ñu loolu. parce que artiste temps yi gis nañu fi benn beatmaker nee na benn artiste fay na ko 2 millions ci bit ñi ñi naan dafa ëpp dafay exagérer ak yooyu noonu. waaw que mu munul munul nekk 2 millions nga jëndee ko benn bit te yaa ngi wax ne yow benn son mun nga ci am 20 millions. waaw mais mais man système royalties laa la jox. waaw moo tax ma ne la parce que parce que fii Sénégal amul système royalties. ok tu vois donc euh, artiste bu ñëw pour biir mi ko am si benn revenu il faut mu joxe lu am sens. d'accord dès début. est-ce que comprendre mm-hmm. donc bu fekkee ne moom am na deux millions fii Sénégal félicitations quoi. loolu xamul ma ko dara quoi est <laughs> sa sa bit bi nga bi la gën a marqué boo xam ne tamit euh, def na def na def na benn en fait yokk na sa notoriété ban mhm. la honnêtement laughing toute la night la quoi d'accord que man comme li ma la waxoon sànq mosuma woon teg sama tànk France en 2011 mhm. mais nit ñi ñoo ma di ma naan sa woy bi mu ngi daw France rajo mhm. Skyrock ñëpp ñu ngi koy déglu fii. tu vois ma ñëw Sénégal même chose gars yi ne ma la fin de la night c'était sama morceau favori bu nekkee xale maa ko doon déglu tellement. vraiment la fin toute la night la quoi. d' accord euh, maa ngi gis tamit euh, beatmaker ñu bëri dañ ñaan du liggéeyal artiste bu amul talent te damay gis bit des fois bit bi day nice. mais mhm. artiste du talent bi du fi nekk est ce que yéen tamit dañ leen di fay rek ngeen def prod bi wala boog da ngeen di déglu artiste bi ba pare doo koy defal production. man gis man dama jël sama liggéey au sérieux man sama liggéey amul caaxaan même soo ñëwee nii nga am budget mhm. sa talent bi xaw a des et il faut ñun ñaar ñu toog ñu job si. parce que lu génn dañuy naan sama tur moo si attaché wu. tu vois ma nekk ma. mais fois da ngeen def ay yenn yoo xam ne teg seen euh, façon bi ngeen di def da ngeen di xaw a neexal baat bi. voilà non dina dina neexal baat bi lépp dina naas. xam ne baat seen baat yi mooy loolu. ah Aïda moom dina neexal baat bi affaire bi dina neex waaye soo demee show nga yëkkati microphone bi gars yi ne waaw mais ana baat boobu nag. Mm-hmm. ah loolu moom loolu mooy affaire bi mais. dinañ ko liggéey ba mu nice ngeen doogee liggéey ak il faut liggéey talent bi nga travail taxi travail vraiment il faut nga job mais comme li nga wax rek am naa nit moom si studio bi la pay nice waaye si ni taxawee show jël microphone bi moom yéen ngeen accepté loolu ah mais xam nga. xaalis bi rek ngeen di gis fay na leen. non du affaire xaalis. Mhm. parce que bu fekkee ne man. su ma ñëwee ak yow daf nañ produit boo xamante ne ku ko déglu xolam de sedd neex na ñëpp si biir dëkk bi xam nga produit bi c'est parfait waa léegi soo bëggee def show sa baat bi nakari si show bi xam nga boobu nekkatu sama contrôle <laughs> loolu yow yaay xool quoi léegi si fi ngay defee show mm-hmm. am na yenn technicien yoo xamante ne mën nañ la defaral pour sa baat neex foofu tamit est-ce que mu ne la dóora autotune. par exemple Canabasse defoon na benn show euh, soo duggee si YouTube bi am na benn morceau bu tudd yéen a tax. Mhm. yéen a tax man maa produire morceau boobu. gant bi technicien am ko dóoral autotune. muy woy si si si kii bi si show bi. Duuking sax defaroo ko autotune moom tamit. ah mais Duuking King Duuking c'est un comédien comédien buy woy. tamit nga koy defaral ay bit mu nuy fii. Ah, xam nga rek. Ah, Duuking Duuking xoolal ñuy autotune dafa bari. woykat sax dëgg-dëgg sax dañuy autotune. mën nga jël ko dàq woy mën nga mën nga jël ko dàq woy Sénégal. soo ma wanee benn woyam ma ne kii lii dañ ko autotune am na yenn autotune yoo xam ne suñ ko dóoree si baat yow doo ko dégg. melo melo mélo melo Melodyne ingénieur de son yi xam ne la mooy melo Melodyne. Mhm. Melodyne dañuy changer sa mélodie bi def lépp pour mu dugg si instru bi mais kenn du xam ne ni yow liggéey nañ si sa voix. Mhm. waaw ah, mais loolu loolu mooy hmm. production. li ma li ma remarqué genre xam nga li ngay def xam nga sa liggéey mën nga ko et tout. waaw euh, yaa ngi ciy xaalis mais pourquoi Sénégal peut-être yaa ngi liggéey ak quelques artistes mais xamuñu la bu baax ci ci ci ci ci si liggéey bi ngay def quoi loolu. wala nga basé wu foofu à l'étranger rek di defal. no man bi ma ñëwee Sénégal yàggul sax honnêtement ça fait un an et demi yooyu maa ngi fi. tu man su ma duggee si benn marché tout le temps dama bëgg toog di étudier le marché. noonu laa def bi ma demoon France toog foofu un an étudier le marché xam ni dox buum disque d'or génn donc man bi mu ñëwee Sénégal mu xool étudier étudier. pour pour fii booy dañoo tàng beatmaker yi nekk fii nga xaw a kii. waaw am na am seen propre style tàng ne seen propre tàng. waa ñoom ñu ñuy amee tour dañuy attaché seen tour si benn artiste. waaw est-ce que comprendre nga. par exemple beatmaker boo tudd. ku nekk ku nekk am nga foo bokk. ba pare noonu la gars di leen xamee. Mhm. voilà. man nag munoo ma attaché ak benn artiste pour l'instant vraiment ki nga ah, mën a ki oh, ki ah, Canaba mais waaw ak Canabas on peut dire avec Canabas. waaw mais mais Canabas munoo joob ak ay kii wam de ay Omzo nii. Omzo ah, waaw ah dañoo jotee non xam man man <laughs> man man du ma si affaire far ay affaire camp yooyu quoi man dama nekk si business. si business laa nekk tu parce que parce que même euh, même soo jotee sama benn maam famille waaw mais seen diggante ñeen ñaar la ma sama yoon nekk si man damay def sama business. Mhm. après c'est fini quoi est-ce que mhm. mais pour revenir sur sa question producteur dañuy attaché ou ak benn artiste te artiste da leen di dugg si YouTube di bind seen tur si YouTube bind seen tur si Audiomack mhm. donc sénégalais bu nekk dinañ gis tur bi après dem suivre leen si réseaux sociaux yi. tout court. est-ce que loolu c'est aussi. yow ngay def euh, beatmaker xam nga nekk beatmaker attaché wu ci benn artiste est-ce que loolu tamit c'est c'est normal. est-ce que c'est normal bon man li ma xam soo mën a avancer par exemple est-ce que loolu euh, beatmaker war na ko def. sa beatmaker war na ko def. day toog naan du ma du ma defal kii son parce que sama artiste may liggéeyal euh, concurrent wam la wala quelque chose comme ça. xam naa xam naa day fekk ne kooku mu signé peut-être benn contrat ak artiste ba wala mu nekk si benn label. Mhm. xam naa peut-être loolu moo koy téye quoi. Mhm. mais mais producteur tout le temps dafa war a branché wu si yeneen. ci ñeneen yaa si ñeneen yi quoi. parce que même soo commencé nga fël ak benn artiste. Mhm. ñu ne yow yaa tax artiste bi fël. wala yéen ñaar yaa leen fëlandoo. après man si man si plus intéressant producteur bi di job ak yeneen artistes yi aussi ko d'accord mis à tamit gis nañu is tamit am na disque door moom tamit ak ak benn benn artiste moom tamit nan nga gisee moom tamit liggéeyam. mais mais gis na affaire disque d'or il faut ñu wax si. ah yaa xam nga yaa juste huit sénégalais. am na platine am na or. huit huit sénégalais fan la amee platine. moo ko wane nii ci Pape di ma gis ko man. platine. non il faut fan la amee platine. ca États-Unis la ko amee. platine états de un million de ventes un million de ventes pou am platine un million de ventes mooy ñaata. un mooy cinq cent millions CFA. Mhm. gis nga site yi site yi mu ngi dugg si sit bu nekk tapé tour nga xool ndax kii lu muy wax dëgg la man li ma wax mu ngi dugg si snap snap mooy def certification en France. nga tapé Islam si Havana di nga gis sama tur États-Unis am na système tuddi mais moom am na disque d'or na disque d'or c'est l'album ki a fait disque d'or defe naa si je me trompe pas. Mhm. l'album bi moo def disque d'or man man sama benn way gis na si biir album si biir album bi yëpp. c'est le seul morceau qui a fait disque d'or cinquante mille ventes comparé l'album xam nga album bu def cinquante mille nga tasaare ko si pour gars yëpp séddoo ah y' a une différence. y' a une concurrence is de. non mënul moo ko def concurrence ndax is sama rakk la. is ah. is man ak moom bindam job. mais yow da ngay. man dama ko dugal si marché français bi moom maa ko gis Ablaye gisoo platine is. man dama ko dugal man dama ko dugal si marché France bi ñu defee collaboration. Hmm. est-ce que comprendre nga is nekkoon na am studio ak moom géejuwaay is dafa am talent. torop. dafa mën a woy dafa am baat boo xamante ne soo ko tegee si instru day neex donc bi ma nekkoon ak moom studio def neen benn production boo xamante ne placé naa ko en France ak Ice MC euh, featuring K Point K Point mais Iss dafa am talent dafa am talent quoi mais man je me sur des faits xama nga xam nga soo nee def naa lii il faut gars yi mën ko vérifier quoi. gars yi il faut ñu vérifier ko soo nee def naa lii gars yi war nañ mën a dugg fenn ba ah, gis preuve yi quoi. waaw voilà dañuy ñëw nga wan ñu kii bi rek ñu ne waa kon am na disque door ñu gëm la quoi. wa non non mën nga dugg comme li ma la wax sànq rek. Ah, snap gis nga ah, snap certifié par le snap gis nga lii lii label moo ko commandé envoyé jox ma ko. mais Euh, benn son la bu am disque. benn morceau benn morceau. bu am disque d'or loolu moo tax mu rëy nii parce que loolu bëri euh, artistes sénégalais dañ ciy dañ ciy xaw a réer un peu. mën na am disque d'or. yow tamit nga benn son tamit boo xam ne mën na am disque d'or. voilà single. ok single c'est euh, sama sama spécialité mooy single. soo bëggee single buy toj ville wala dëkk da ngay ñëw si man. platine bi nag fan nga ko amee. avec la fouine toute la night. te album boobu tam mën nga ko vérifier. dafa def platine en France boobu album bi la. voilà mun nga vérifier loolu man lépp lu mu lay wax vérifier ko. is nag ñu vérifier basam wala. vérifier lépp. kon yow gëmoo ni euh, platine bi am na ko. platine aux États-Unis waaw c'est un million de ventes. ak ban artiste la amee platine. non non ci biti la ko amee. si biit. da doon concours xaw ma na ngeen amee platine si bii aux États-Unis c' est pas possible. il faut nga jaay aux États-Unis pour nga def platine il faut nga jaay un morceau est-ce que comprendre nga. Mhm. par exemple su ñu nee Chris Brown def na un million de ventes loolu mooy platine aux États-Unis cinq cent mille ventes loolu mooy or aux États-Unis parce que États-Unis dafa rëy du dëkk bu no bu comme yeneen dëkk yi. Mhm. cinquante états nañ jël boole ko mu nekk benn dëkk. loo ma tax pour def platine un million nga soxla de vente. or cinq cent mille. kon daal yow yaay beatmaker sénégalais boo xam ne benn single am nga ci disque d'or. am naa ci disque d'or mais du ma dindi dara ci is ndax félicitation ci moom quoi. Mhm. parce que loolu accomplissement la. te sénégalais bu def accomplissement boobu war nañ ko tàcc ñu ñëpp. Mhm. donc il y a huit sénégalais seulement huit sénégalais sur le territoire sénégalais. ñu def disque d'or ak platine huit kese Youssou Ndour si la bokk Is si la bokk man si la bokk Laba Soose ak Kanose waaw huit kese te ñu ñëpp si man ay légende nañ Is légende la légende la Youssou Ndour ñun ñëpp si des légendes mhm. ak Omar Pène defe naa de ah yeah man ñoom ñu ko am bariwul si territoire bi sénégalais ak réalisation yi nga def ci ci métier bi nga bi nga nekk mën naa ko ak lépp li nga ci am est-ce que am nga leneen loo ci séntu loo ci bëggaat. lu ma si bëggaat man sénégalais laa réew doomu réew bi laa donc man lépp lu mu mën a apporter pour le Sénégal dinaa ko def. Mm-hmm. tu vois mais en même temps mu ànd si ak respect et tout parce que ñu bari dañuy toog xam nga dañuy bëgg nga ñëw. nga produit leen nga jox leen lépp ko après ñoom ñu encaissé lépp te yoroo si am dara te àdduna du noonu surtout musique business musique la plus business tu vois donc euh, on garde le respect et ma ñëw jàppale artistes yi nu mu leen war a jàppale ku si am sa budget mun nañ ñëw ñu waxtaan si man damay jobax budget yëpp mm-hmm. tu tey conseil bi nga doon jox par exemple jeune beatmaker yu nekk fii yow yaa leen gën a am expérience euh, ban conseil nga leen di wax nga leen di jox parce que ñoom tamit indi nañ seen originalité di duggal si biti ay sabar wala quelque chose comme ça déjà ban conseil nga leen di jox en tant que waaw xam nga am stylu sabar baax na si hmm. baax na pour le Sénégal mais mën nga am benn stylu sabar boo xamante ne àdduna bi yëpp dinañ ko mën a déglu hmm. comme woyu Wally Seck bi Natural ku nekk mën na déglu woy boobu ngay tubaab ngay indien ngay kii parce que woy bi dafa neex te sabar a ngi si biir est-ce que comprendre mm-hmm. voilà man lu ma leen di gën a encouragé mooy jéem leen collaborer ak yeneen beatmaker yi ressourcé wu kii euh, jéem a assaisonner seen style un peu xool yeneen genre mélodie yoo xamante ne sur le marché global dina marché quoi mm-hmm. tu en même temps mën nañ mën nga garder sa sa style mais en même temps mu nga xalaat niveau international tamit quoi. Mhm. est Sénégal gis nga benn artiste boo xam ne genre da nga toog ne kii bëgga naa liggéey ak moom. ah man lu gën a doro mooy waaw bon ñu bari ñu ma bëggoon liggéey ak ñoom maa ngi commencé liggéey ak ñoom déjà. mais man vraiment bëgg naa liggéey ak Dip. ak Dip eh Dip am na beatmaker am de 2 millions la koy fay. Ah, ah, mais Dip. di di nga dégg moo tax nga bëgg a dem liggéey. non du si affaire xaalis. man su may joob ak yow su may joob yow. te fekk ne am nga talent boo xamante ne ñun ñaa mën nañ def collaboration boo xamante ne dina egg benn niveau. maa ngi jooba par exemple maa ngi jo voilà def naa benn Moussa Ngaka par exemple. Mhm. maa ngi joob ak Amzo. Amzo dem maa ngi na waxtaan ak moom. nee naa ko Amzo man dinaa la tegal dara tey tey dama am session ak moom. Amzo am na nu muy demee moom tamit dina am disque d'or incha allah. ndax daa am lu ma koy tegal. donc donc relation boo xamante ne gagnant la gagnant. d'accord affaire u 2 millions yow 2 millions tiitalu ma ko. Mm-hmm. mais bëgg nga joobam moom dama mm-hmm. am na talent ma tegal ko si affaire même sax is is su bëggee joobam moom mën na ma contacter mm-hmm. ñu joob def dara pour le Sénégal parce que le fait pour le Sénégal tamit quoi compétition neex na compétition neex na mais à la fin la journée ñu ñëpp. Ah si même si même équipe neen bokk. si si mën ngeen def collaboration. collaboration disque d'or. tamit mu nekk coupe du monde ñu gagné coupe du monde ensemble quoi en équipe. <laughs> lan ngay tàggatoo lan ngay wax euh, sénégalais bi la doon suivre tey ak euh, lan nga leen di wax. non bon man comme li ma wax sànq man doomu réew bi la et man euh, je veux apporter quelque chose au Sénégal mm-hmm. euh, nit ñi gën a jox cër musique sénégalaise jox cër artistes te ñu fay leen seen seen royalties vraiment bëgg na gouvernement bi jug si waa SODAV ñu jug si vraiment ministère de la culture ñun ñëpp mm-hmm. xama euh, aussi créer yenn programme comme ni Ghana di def programme pour euh, les noirs qui sont aux États-Unis pour ñu mën a ñëw di gën a visiter la Sénégal. Okay. pour ñu xam la mooy Sénégal. voilà si man mën nañ commencer programme yooyu comme te gana dafa commencer programme yooyu mu andi leen ay milliards et des milliards. Mhm. si xaalis te man Sénégal milliards yooyu mun na leen njëriñ dara quoi donc vraiment wan nañ commencer programme yooyu xam nga mhm. inculquer les autres pays quoi dans notre culture quoi. d'accord ça fait mhm. plaisir dalal la fii comprendre nañu lu bëri ci métier bi ngay def ak conseil yi nga joxe am na solo aussi. Mhm. gars nag nañu fay bit mais wax nañ dëgg. nañ nañ fay fecc rek ñoom la. dib yaa ngi fay 2 millions jaajëf yow yow. Ah, yow borom baax nga moom xam naa 3 millions la lay jox parce que yow 20 millions nga dal laa. non man man bari bari bari ma problème xam nga système robotisé amul Sénégal garaaw amul benn problème. mën nañ jóg waxtaan si itam. Mm. mu benn point la. karabalik dina la mere de. karabalik non karabalik mënu mu mere sama euh, kii la rek. sama collègue collègue euh, beatmaker mënu mu mm-hmm. mere. merci kontaan nañ ci dalal la fii nii di xaar yeneen pot yoo xam ne ñu mi ngi ñëw ak ñoom Dip ñoom Omzo. amiin amiin affaire yi gën a kawe incha allah. merci beaucoup Aïda merci kontaan merci.